defal tuuti doomu taal boyal ñaari xal ñaari xal laa leen sant def ko fii daa di ëpp teg nii daa teg ci sa bopp coiffeuse jël sa naq rek daa di ko ci pëy rek daa di tëj yàlla boo taal sa tilim boo amee sa ventilo rek nga teg muy gos-gosi waaye balaa ngeen a mën a kontaan boyalo boyalo boyalo boyalo boyalo ba mu xonk ngeen teg rek daa di koy ci teg nii rek muy jës jës loolu doo xam neexaay bi guddi gi suba damaa bëgg yéen ñëpp ngeen tëgg ay lëmbal jeeg ji tëgg leen ay lëmbal seet leen li ma leen wax ngeen xool ndax bu ngeen xëy seen dépense du yokk jéeg day tàmm ay lëmbal jéeg day tàmm wóor doo sër di lëmbal waa kii kii ñun ba réew la ñu nekk ah maam Ndiaye c'est bon tey kay ma ngay xulloo rek nanu dem seetaani ko sa jëkkër yor téléphone am ni nga yor téléphone day am temps boo xam ne da ngay xëcc téléphone bi rek mbéj ci miir bi xëcc beneen téléphone bi rek chargé tëj fay lamp yi tëj parenthèse nekk ci sa bopp wéet léeg-léeg nga wéet mu wéet dëkk ba daal di tëj xale ya jooy mag ña ñaañu xóot waaye nga toog rek naan moom kay connexion bi kay tey moom kay tey noonu la neexee connexion bi kay tey noonu la neexee waaye tey internet bi maam Ndiaye dée ngi dëbb internet bi xeex guddi xeex bëccëg suba ngoon baleen loolu dee leen préparé seen dëkkër yi di wàcc di gos gosal ba mu gos xale yaa ngi jënd sëri sëri fi mu ne cinq ma dese dëkk bi yow cinq ma dese sëri sëri